بسم الله الرحمن الرحيم ci turu yàlla mi yërëm mboole mi jaamam di jagleel ñàkk a gëm yërmaande yowmal qiyaama inna a'taynaaka al-kawthar ñun dey may nañu la li nga xam ne mooy kawsar di dex gu mag gu lay xaar àllaaxira fa salli li rabbika wanhar na nga julli ngir sa borom kese ca bay rayit nga rey ngir sa borom kese inna shaani'aka huwal abtar kii nga xam ne nag moo lay ayibal di la saboote kooku rek mooy ka ñàkk gannaawu